صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di gërëm suñ sëriñ Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di leen nuyu kenn ku ci nekk ci yéen turam ak santam di leen ziyaare di wax alhamdulillahi rabbil alamin ba bi ñu yàlla mayaatee ñu nekkaat ci jotaay bi mu nekk jotaay boo xam ne ñu ci suñu fukkeel ak juróom muy tekki rekk ne ci li ñu nekk neex na yàlla yàgg nag dëgg la waaye fa yàlla la gën a nekkee dëgg parce que dëgg moom mooy yàlla amul lenn loo xam ne mën ngaa nekk dëgg te doonoo yàll yàlla mooy dëgg lii nga xam ne tey moom lañu war a ci lañ war a jublu muy laylatul katmiya maanaam boo jëlee exemple nga jël ko exemple ci suñu dund ni ñuy dundee ni ñu nekkee ak ni ñuy dalee da ngay wax rekk ne dañuy màggal bés bi nga xam ne Cheikhu Tidiane mu ngi wax ak boppam Cheikh Amadou Yoro Ndaw dafa wax léegi mu ne yenent bi dafa ñëw ci Cheikh wax ko lii Cheikh tontu mu wax lële duma ci jaaraat Cheikh tontu ba wax ji di bëgg a gudd waaye billaahi wallaahi tallaahi keroog Cheikh boppam la doon waxat cheikh dafa yegg si ci maqaama station boo xam ne tey jii góor yàlla yi ku nekk ngi ciy yegg ndax cheikh a ñëwaat moom ci boppam moom ci boppam di ko xamal góor yàlla yi bis boobee ñu ne yàlla ci boppam dafa wax yenent bi ne ko xam-xam a ngi nii xamal ko mbooleem xaalam bi yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam-xam bi xamal ko ku la soob xam-xama ngi nii nag xamal ko ku la soob ñenn ñi rek ñoo ko war a xam waaye xam-xama ngi nii nag man yàlla rek maa koy xamle li ci nekk man yàlla rek maa ko xam man yàlla rek maa ko xam ku bëgg a yegg ci xam-xam boobu nag station booba góor yàlla gu mag googa taxawoon ci ngay dem pour yegg ci station boobu xaw ma ndax yéen a ngi may suivre am de suivre leen ma de tey waxuma ak ñi nga xam ne xamuñ de damay wax ak ñi xam parce que xam dafa baax boo xamee di wax di nga mën a dimbali ki xamul ba mu ñeantal ba mu am na nu ko olof di waxee ba mu xemem walla sëriñ bi dafa dégg wolof ba mu xemem loo ki nga xam ne xamul pour mu xam soo fi nekkee te xamoo dégg waxi ki xam dinga xam soo bëggee di xam jaaykatu parfum bi boo demee ci moom mu maas la nga jaay par nga xam parfum ma dellu kon ci sujet bi xam bi nga xam ni moom la dina Cheikh xam ñu wëlbatiku di ko célébrer kenn ku ci nekk ci ñun ci ñi xam mën nga ko toog sa biir kër nga célébrer ko ba jooy ni ngay jooyee mooy ni nga xame ni sa diggante ak sa borom noonu la ko yàlla yéwénalee ba yow nekkatoo fa moom rek mu nekk fi Seydina Cheikh nag ci station boobu la tolloon keroog bi muy wax ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbir yépp ñëwandoo nag ci moom naka la mbir yépp ñëwandoowee ci moom yonent bi ci boppam nekk di moom yàlla nekk di moom lépp ñu doxañ ko ci genn jëmm ji te musu musuñoo tàqali ko dafa jóge fii rek dem fee te wallaahi jógewul fenn demutit demutit fenn fi mu toog la toog toog sax nekku fa woon dafa jékki-jékki rekk mbir yi leer waxuma leer ci boppam mbir yi dafa leer dafa jékki-jékki rek mbir yi leer su ma nee leer ci boppam mën naa def mistake mën naa def faute parce que ku mel ni Cheikhou Tidiane du ma ne mbir yi leer ci boppam xaw ma yéen a ngi déggam déet dafa jékki-jékki rek ñu mu suivre dafa jékki-jékki rek ubbeeku dafa jékki-jékki rek xam foofa nag li tax ñu koy célébrer ci la yàlla waxee ni nag man nëbbatootuma kaay leen ngeen xam ma man bis boobu à partir de ce jour là ci la yàlla ubbeekoo pour ñu xam ko walla ci la yàlla ubbeekoo pour xam boppam ci la yàlla ubbeekoo pour wane boppam ci la yàlla ubbeekoo pour xam boppam à partir de ce jour keroog la yàlla commencé nag di xamal boppam jaam yi ba yàlla di wal bëftu bi jaam yi dañ koy xam xam nga kañ la ñuy kañ la ñuy dem ba nga xam ne yàlla dellu na ci weetaayam gi am na ñu wax ne yàlla suñ demee ba dellu ci wéetaayam gi mooy bi fi lépp jógee nit ñëpp dee ñu suul leen garab yi ñu lem déedéet du booba bés moo wax leen ko tey te firil leen ko bés bi nga xam ne yàlla ci lay dellu ci weetaayam gi mooy bés bi ñëpp tarbiyoo ba xam yàlla ba fëgg seen dënn ne man maay yàlla ñëpp nekk di yàlla keroog la yàlla parce que njanaaw yeeg garab yeeg yooyu yëpp ñoom amuñu xel buñ buñ jógee jëm ci yàlla ki am xel bi mu jógee jëm ci yàlla te yàlla def ci moom parce que njanaaw yeeg rab àll yeeg garab yeeg yooyu ñoom xam nañ ba pare xam giñ xam mooy nekk gi leen yàlla nekk waaye nag ñun yàlla daf ñoo def xel ba pare ne ñu ñun mu wax ak ñun ak jinne ne ñu fa firru ilallaahi daw leen jëm ci man daw jëm ci man moom bi mooy ñu daw pour xam ko moom keroog nag bu fi wéetaay amee mooy keroog bi ñëpp xamee góorgóorlu neen ngeen xam te ngeen bàyyi xool yi ngeen may xool góorgóorlu ngeen benn ngeen xam képp ku xamul yàlla perte nga fii perte nga fële da war a xam yàlla dañ koy xam waxuma la nga ñëw xam Maulana Cheikh Ibrahim wala keneen de yàlla laa wax dafa wér ci xam dañ koy xam kon nag dama doon mos rek ci lii waaye sëriñ bi mu ngi war a waaj a dugg ci thème bu am solo xam nga li may wax nii yépp dafa am fondement fondement bi mooy wir wirde tijaan ak tarixa tijaan ak ni tarixa tijaan nekkee tarixa tijaan te ci la sëriñ bi war a dugg nan la war a duggee ci loolu dana fàttali nit ñi askaaru euh, Seydina Cheikh askaaru tijaaniyatu nan la ci war a duggee dina wax ngëneelu tarixa tarixa bi ak effet bi tarixa bi di am ci nit doy na rek nga xool benn tiijaan fële rek mu rafet lool sol lu rafet kanamam ngi li ci bal leer kese nga xam ni kii am na lu ko yàlla may li ko yàlla may mooy topp Cheikhu tiijaan te digle yi nga xam ni moom la Cheikhu tiijaan def digle yépp nga nekk ca Cheikhu Tidiane boo ko bëggee kese doyut soo ko bëggee daf laa xalal moom aw yoon te yoon woowu sëriñ bi dana ci ñëw te dana ko yaatal te dana ko tax wi ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla defal ko tawféex ak siir ba nga xam ne ñun ñiy dégg dinañ fi jëlee njëriñ wax naa Cheikh Amadou Yoro ne ko ñun dey su fekkee dañuy dem ci jotaay te duñ fa jëlee njëriñ jotaay ba amatut njëriñ waaye jotaay yii dey dinañ fi jëlee njëriñ doy na rek ñu waxtaanee wérde tiijaan tuuti rek dina am ñoo xam ne dinañ ci for loo xam ne buñ demee dinañ rectifié wu loolu rek njëriñ la rawatina nag ñuy waxtaanee ku màgg ku foor ki nga xam ne mooy maami Chérif Hamza mi toog suñ duggee ci loolu njëriñ dana am njëriñ dana wàcc maa ngi tëjee nag di nuyu tey kàddu famille bii duma ci wax dama koy jox rek bu sëriñ bi pare dama koy jox ñi nga xa euh, soxna Maymuna euh, dañ ko daan bëgg lool ñëwul ah kon nag dinaa ci wax Cherif Hamza Atijani maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay jox sa wàcce waay wàccuwaay di la wax ne nuurul basar day amel nañ la njukkal ndax saa su nekk rek yaa ngi ñëw di ñu bëggal keroog comme li ma waxoon xalifatu xalifa bi rek ne ko tabe du tabe alal wala joxe wala dara tabe gi gën a neex ci tabe yi mooy sa tabe jëmm am na ñoo xam ne gàttañ lu nañ lool programme yii duñ ca dem duñ ca yónnee waaye moom saa suñ ko woo mu ngi fi te du alal la ko yëkkati ànd ak ñun te yàlla tax mu ko yëkkati jërëf jërëjëf sa programme bii nga xam ne incha allah dimanche la ci ngoon ñun nurul basar bu ñu fa kenn jiitu incha allah te am naa yaakaar sax ñoo koy baasal xale yi sëriñ bi joxe na ndigal mu ne na ngeen indi seen nuroowaale yi seen nuroowaale yëpp na ngeen ko sol yu rafet yu zone yi ngeen sol macha allah rafet na torop ngeen indi ko kër Chérif Hamza Tijani ñu àndandoog moom ci bis boobu bis booba nag dafa am taxawaay bu ma ca am taxawaay ba mooy képp ku fay ñëw te bokk ci nuurul basar na nga indi xaalis na nga indi xaalis bu baree baree baree bare su fekkee naroo ko am yal na yàlla may la ko ñaan naata yàlla mën na leen ko may ku am te ñëwoo yal na la ko yàlla bu déwénee yàlla boo am ku am na nga ñëw te boo ñëwee nag ma jege incha allahu taala dama fa am taxawaay bu rëy ci bis boobu noonu kon nag ñi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin su ma fi nekkee di lim kenn ku nekk Cheikh Amadou Yoro lim na ko waaye kàddu famille bi li ma ciy wax mooy sama nijaay Omar Ngalla Sàmba ngi nii toog di suñ nijaay ju baax ak sama mag Cheikh El Hadji Sidaat si tey moom euh, leneen la may nuru moom tey euh, waaw may nuru ni waaw mu ngi noonu Sidaat jërëjëf suñu mag ju baax la wax dëgg yàlla maa ngi nuyu sama bàjjen kinne si ñëpp soxna Aminata si gisuma leen bu baax waaye xam naa ni yéen ñëpp ñu ngi fi Euh, Alaaji Malick si mu ngi fi ah Xadijatu si mu ngi fi Abdourahmane si yow ci nga bokk ma nit ci la bokk ak ak Moustapha si ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye daal ci gàttal bu ñuy wax ci kàddu famille bi dañ naan ko Serigne Cheikh jërëjëf famille bi nag dafa yaatu parce que euh, famille famille bi nag dafa yaatu ndax li ko yaatal mooy. njaboot bu ñaar ñett juddoo am jëkk am jabar rek njaboot gi commencé naa ñëw yaatu te sama papa di sama turandoo Abdourahmane si daf ma wax El Hadj Abdourahmane Sy ma wax lu am solo daf ma ne Serigne Cheikh wax dëgg yàlla kilifa la moom moo ma waxal boppam lool sama njaboot gi dénk naa ko ko. pour temps du fa mag sidaat a ngi nii sidaat dañuy waxtaan ci lu bare bare bare bare man ak moom amul dara dara dara loo xam ne ump na ma ci sidaat mii kon su ma waxee su ma su ma waxee lii rek ñeme naa koo wax parce que Serigne Cheikh mun nañ mun nañ ne du fi toog may wax loolu waaye nag mën naa koo wax parce que Serigne sidaat ci boppam moo ma xamal ne ma moom Serigne Cheikh mooy kilifaam du noonu. Serigne Cheikh kon nag bu demee ba nga xam ne ci biir famille nga nekk koo xam ne yow takkoo nga ak sa njaboot takkoo nga ak say waajur fonk nga leen respecté ne leen ñi la féetee kaw ñi la féete suuf yépp yaa ngi leen di jëriñ fa tabaarakallaahu kon yow wàcc nga ba pare nag la ma ci gën a neex nag muy dundal tarixa tijaan nekk ci benn zawiya tuddee ko abi sam xuun ay góoru yàlla di fa génnee di mel ni Cheikh amadu Yoro Ndaw ak alaaji Malick Soumaré mi toog ñu fay génnee di fa nekk ay nit ñu modèle ñu mat ñoo xam ne ay exemple lañ loolu moo ca gën a neex yomb na lool nga respecté say njaboot fonk leen waaye boo amul njëriñ amoo njëriñ doomu aadama nag njëriñ lañ koy doyee waaye njëriñ li ëpp njariñ du njëriñu alal comme ça yenn saa yi lima mën ñu may tagg yooyu loolu du njëriñ tus li njëriñ kay mooy li mu nekkee xam la yàlla joxe askaaru tarbiyu bu teg ko ci yoon joxe xam-xam wasalaamaaleykum wa rahmatullah